Salam les patriotes euh, tey dama ñëw pour parler ak audition Ousmane Sonko et arrestation Pape Demba euh, Pape Alénia Niang lan lié le jeudi Maham Diallo dafa recevoir Ousmane Sonko bi ko recevoir Ousmane Sonko euh, auditionné ko Ousmane Sonko dafa am dossier confidentiel bo xamné enquête interne au sein de la gendarmerie mu yëkkati ko jox euh, Maham Diallo le même jour le Pape Alé faire un live wax li dossier bi ak audition Ousmane Sonko Maham Diallo yëkkati téléphone am le colonel Abdul Meng ne ko colonel est-ce que mën la gis demain colonel bi ne ko problème le lendemain le vendredi Maham Diallo recevoir colonel euh, Abdul Meng jox dossier bi bi colonel Abdoul Mbengue xoolee dossier bi neko effectivement dossier bi dossier enquête interne la au niveau de la gendarmerie mu ne nan la ma xam laaj Abdoul Mbengue neko nan ngeen meuna a def ba dossier bi ñi jot si mu ne dossier bi ñet nit ñoo ñoo gis man Abdoul mom euh Augustin 13 qui était en ce moment le général de la gendarmerie ak basirou Gueye qui était le procureur nee na ko man sama bureau amul caabi sama bureau en fait yaa dee euh, ay code la code ngay ubbee bureau bi sa man sama bureau même soo ko ubbee sama ginnaaw man automatiquement dama koy xam à partir de mon téléphone dama lay gis ki fa dugg donc affaire bi noonu la demee donc impossible mu génne sama bureau wala bureau Augustin Tine bon maa xam xelam dem c'est Bassirou Gueye mais Bassirou Gueye il n'avait pas intérêt à divulguer ces ces ces ce document là parce que document bi dafa incriminer Bassirou Gueye ma fàttali leen maître Papa Dembo Thiero Bobo, moo greffier Bassirou Gueye mu nekk greffier aussi Maham Diallo maître Papa Dembo Thiero Bobo, greffier dossier boo soxla moom koy laaj mu dem génn ko jox donc ñom ils se sont dit une chose dans la tête kon mën na am si greffier bi moo tax jeudi la auditionné Ousmane Sonko vendredi mu déglu Abdoul Meng lundi ñu jël Papa Demba Thioro ma Papa Demba Thioro boobu yóbbu ko affecté ko Kaolack parce que le général Moussa Fall bi mu yëgee dossier bi dafa ni il faut ñu xam kan mooy laa toog boo leen seetaanee vidéo Pape Alé bi mu naan ordinateur bi di génn sama kër Bobo, naan set les cinq gendarmes s'étalent setaloon capitaine Touré Bobo en fait Pape Alé il jouait avec eux Pape Alé il est super intelligent parce que en fait Pape Alé qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête Comment les ni gars yi ñu ngi si ay tànkam mu nax leen noo leen ordinateur du génn mukk sama kër boobu Pape Alé waxul ak yéen ñi ko doon il parlait avec l'état du Sénégal ma vous leen encore une chose jour bi nga a fait fenam euh, yooyu daal di dem porte plainte bu leen fàttali dañu demoon jàpp waa service orange ñi fa loolu liggéeyee ñooñu tey jii ñëpp ñi ngi dellu nañ seen poste de liggéey en fait bi ñuy dem orange xamoon nañ ne orange bu ñu tàppee turu aji Sarr dinañ gis numéro téléphone am sa appel téléphonique yi mu def yëpp ak deux jours quarante huit yi fépp fu mu dem ñoom mën nañ ko xam si seen GPS donc fa ñu dem tout orange am pas accès pour effacer les données à Sarr kan la waxal kan la waxal téléphone ak a dem yëpp dans les derniers 48 heures C'est ce ci je won dire. xamal na que euh, ces gens là c'est des voyous Nous, ñep ñoo ci c'est des voyous c'est des gens qui, xamni du matin au soir ñi ngi nek sen combine Ils Pape Alé bi ñoom buntu kër Pape Alé lañu xaar Pape bi Pape Alé génnee bay dem yoonam dañ ko topp parce que xamoon nañu pour ñoo am si ordinateur bi fale ñu jàpp ko feneen parce que bu ñu woowoon Pape Alé biir këram sone ne ko police Pape mën na dindi mémoire computer bi sax daal di ko dugal si douche bi ko sànni du ñu gis dara si computer bi moo tax ñoom dans leur dañ ne kii nañ ko jàppee ñenn ñi dañuy xaar buntu kër Pape Alé Pape Alé bi mu demee école Papa Gueye Fall Alé Papa Gueye Fall di changé pneu yi foofu lañ ko jàppa mëna dugg ci kër gi pour jël ordinateur mais Pape Alé il est plus intelligent que euh, dara fekkuñ ko fa pap Alé il avait tout effacé ñëpp motax ñu gëna am lu leen metti ci affaire bi donc je vous dis encore une fois de plus les gars ñi c'est des voyous du sommet nak la wax sa bopp parce que guerre bi ñom ñëpp c'est des voyous lool la amone lima leen éclaircir wasalaam et à la prochaine merci ciao